tabaski et Filek, na fileeg ay amal njëndum xar mi mel ni tulleeg màlle nit ñi tàmbali di dem ci daral yi ngir wut xar ci wutum xar moomee docteur Alioune Ndiaye doon ab vétérinaire maanaam xelam màcc loolu ci lépp lu jëm ci wàllum jur gi di ci dénkaane yile kàddu presque tabaski ñëw na ba pare il reste quatre jours donc bépp boroom kër buy jóg di dem si daral ba pour jëndi xar euh, na ànd ak ku xam xar ànd ak ku xam xar nekkul forcément vétérinaire mais un sénégalais lambda bu demee di jënd xar war na seetlu ba xam xar bi wér na mooy feebarut feebarul comme nu ko waxee suñ diinee comme suñ diinee nu mu ko waxee am na xar yoo xam ne ni bu fekkee dafa am jaare biir bi daw wala gémmiñam xeeñ yooyu yëpp diinee wax na si donc mën nañ jàpp ne buubu dafa feebar mais aussi boo seetloo ku xam xar dëgg bu seetloo dana xam ne xar bi sawar na wala sawarul bu fekkee dafay jënd na préféré jël xar bu sawar. mu ci yokk ni. gannaaw yo dem nga ba jënd xar bu wér ba pare boo indee xar bi si sa biir kër euh, xamoo woon ban régime alimentaire lay jël donc mën nga am jafe-jafe ci biir kër gi xar bi am problème mu jaare dans ce cas bu amee jaare bul jéem a faj parce que automédication dafa bari boo jéemee faj administré garab boo xamante ni dafa war a am délai det ale dafa war a am délai d'attente c'est-à-dire nga wara tok 2 semaines wala 3 semaines doora lek yap bi dans ce cas boko lekke dalay da lay indi bo jende xar bu wer ñew sa kër timit bo demee ba kay lewtal manam di ka ray fasiyene ray besu tabaski bo reyee ba pare euh ling si saraxé nga saraxé ko lu ci xalé yi ak njóobeen yi di jël pour def lakku ñu def ko ba pare mais la majeure partie jigen ni dañuy préférer di ka denc donc yap tabaski même day dem ba tam xarit. denc boobu tamit dafa am ay normes d'hygiène yu ñu war respecter euh, avant nga kay def ci mbouss da nga raxas ba mu set parce que amna ben professeur bu ñu doon wax ne bu fekkee da nga dindi raxasoko ko ba mu set nga dindi mbouss bi ba pare bëgg ka raxas parce que valeur nutritive bi yépp day demaale ci raxasit bi donc vaudrait mieux que nga raxas ko ba mu set def ko ci mbouss nga xamna mbouss bi bo dindé décongeler rek da ngay yóbbu. c'est pas conseillé. heure boo waree nga nga nga sans pour autant nga def déconditionnement nga def ay conditionnement nga dugal lépp ci biir frigo bi heure boo waree consommer génne lépp décongelé dagg li nga soxla di recongelé waat loolu moom day indi ay euh, problème digestif muy problème digestif wala yeneen i xeetu jàngoro yàpp bu xonk bi des nañu xool nañu koy jëfandikoo ñi lee di jigéen ñi wo togg gi ci wañ wi am nañu ci part de responsabilité Ami kolle ñu fekk ko mu ak xaritam di waxtaanee ci mbirum togg geek waccayu tabaski bi mom ni la cey démé ñuy dañuy mariné yap bi ba mu saf bu ñu mariné yap bi ba mu après ñu musal ko buñ ko musalé ñu lak yap bi buñ ko laké tek ko à part. daal di def benn soos bu ndaw tamit teg à part def frites yi salade et tout ça orné ko ba mu baax. bu njëkkoon da ngay gis koo xamante ni day togg def jël soos bi togg soos ba pare jël yàpp bi def si mais pour mu gën a léger ñun dañuy lakk yàpp bi teg de côté jël soos bi teg de côté jël hors d'œuvre yeex salade yëpp teg de côté lu waaye bëgg rek lekk ñu bañ ko mélanger. ba nga xamante ni du luur ñëpp dinañ si mën na lekk te du luur du andil kenn benn problème te mën a ju metti ji di gor ni sax gannaaw bañu gor gorlo ba jënd xar mu baax ñuy sakku ca togin wa mu jar yoon wutul xaalis mo njëkk metti wutul xaalis so amé xaalis après nga dem xar bu baax parce que en tant que musulman il faut avoir un très bon mouton parce que sunna bu dëgër la en fait et après ça maintenant la chose la plus importante moi, comment est-ce qu'on va préparer à la maison parce que euh, moi je ne vous cache pas que dama mon lekk bu xaw a sain pas trop de graisse et tout et tout donc du coup madame elle a compris que c'est pas dans le chouchou que laay lek man parce que am système bu muy def moom xaw comment il fait moussel ou quelque chose comme ça avant muy lakk pour que graisse bi dañ parce que c'est que moi je supporte pas. Ndeye Rokhaya di ab diététicienne muy àddu ci togginu yàpp bu xonk boobu li utilisation bi euh, dañ ko war a saytu parce que danger mi ngi ci li tax ci parce que excès comme niñ koy waxé tout texte est nuisible te ñun dañuy naan ñi ngi tabaski rek donc dañu wara jëfëndiko yap bobu ba num ñu num ñu neexi déet du nonu, du nonu. d'autant plus buñ koy utiliser li ci ëpp ñun togg yi comme niñ koy waxé ay moussel la ay tufe la wuñu li ci ëpp duñ ci def légumes wala crudité wala buñ ko défé décor la dañ koy décorer rek suñu paré ndawal bi lañuy laal mayonnaise yi lañuy laal tuuti tuuti jeexna na nga jóg dem te yakarna organisme bu ci nekk dafa am quantité bu mu soxla nit ki doomu adama bi mi ngi soxla 150 grammes de viande par jour waye ñun imagine toi rek déjà tabaski ndawal li ñuy tek da bu ñu génnee ba tek ñu ne lii dañ koy togg pour 6 personnes yow sa bop yaay njëkk Ali Sow chef cuisinier la xam-xamam màcc lool ci walum togg togg bi dafa am nu wara démé parce que togg dafa am ñetti qui sont par concentration qui sont par expansion et cuisson mixte maanaam boo boolee ñaar yi moo la jox mix. comme tey ceebu jën boo ko doon togg da ngay russi loolu la ñuy wax concentration après nga ñuluk soo ñulugee mooy expansion nga bàyyi mu ñaar nga mijoté moom la ñuy qui sont mix. mais Sénégal xamuñu nag cat li loolu la gëstuwuñu loolu mooy problème feebar yëpp nag c'est lié à une mauvaise alimentation boo xoolee xar dafa am graisse am na yoo xam ne dañuy ànd ak graisse bu bëri surtout xaru yar yi nit ñi dañuy préféré xaru yar te xaru yar moo gën a dangereux pourquoi moo gën a dangereux parce que lekk bu baax lay lekk bokk la xari coggal yi wër mi xam ne seen seen graisse du bëri ndax naaj bi léegi nag ki nga xam ne xaru yar la graisse am day bëri war nañ ko mun togg ba graisse bi muus carrément tamit yàpp li tax muy nakkaree ñor la plupart du temps Sénégal lu ñuy toggee la yàpp boo ko mariné moutarde bi day tere yàpp bi gaaw a ñor day mel ni genre bouclier normalement même miche boo koy defar da ngay jël xar bi raxasum set sel rek ngay def ak ndox diko ko piis dugal ko ci four bi diko def ba mu ñor bu ñoré nak lepp luy assaisonnement lo ci bëgg def nga sotti ko ci kom jeexna non lañu toggé monsieur motax bo laalé mu top la mais jëlal yap nga def ko mariner ko ak mutar fi ba suba da ngay lakk du ñor mais ci kaw day gaaw xam ngay dag mu bañ lolu moy secret bi moutarde bi lay melni comme genre bouclier tay bo také gilet par balle suma la tiiree du dugg moutarde bi day melni genre bouclier ci yap bi poch boo xoolee yaramu xar bi wala yaramu nag bi yëpp fa lay reposé yàpp boobu day naqaree togg yi si yi si si ginnaaw day si la yaram bi yëpp wu yàpp boobu pour boo xoolee longue cuisson la comme ay lu mel ni soupe moo tax boo xoolee soupe yeel la lañuy jël pour def soupe c'est pas par hasard parce que dafa naqaree togg maintenant am na boo xam ne première yàpp ñetti catégorie la boo ko rendee première catégorie deuxième catégorie troisième catégorie xam nga tey nag doo bi amul dara amul benn activité dënd bi côté côté faar yi amul benn activité foofu boo xoolee yàppam day nooy pour ay steak tay bo jëlone cuisse bu ko def steak du gawa ñor. lekin wu bon mën naa jur feebar yu bari ba taxna ñu ci bari seetlu ni bu tabaski jalle lu ci melni ay hypertension AVC day sonal askan wi chef Ali di ci adu maintenant tamit feebar yi tamit li koy waral tamit yàpp bi si la bokk normalement ñu ray tay lek tay dañ koy rendi consommer ko sur le champ.

phénomène bu bees ñu nemmeeku ko moo di njaayum nokkos ginnaaw bi ñu diglee ñu moytu bouillon yi ak épices yi ñu ci bari léegi lii lañu xewal Astu Njaay di ab toggukat te yàgg ci lool nokkos bu saf-sap lay defar di ko jaay waaw liggéey bi moom yàgg naa ci ci togg bi sax la ma nit ñi gëna xam waaw togg moom yàgg naa ci trop def na ay at ëpp na 10 ans maa ngi togg ëpp na sax 10 ans 12 ans yooyu yëpp ëpp na ko parce que bi ma dalee di togg yàgg na waaw ndax aéroport laa nekkoon jas voilà presque yi gagné restaurant aéroport bi man maa ko doon toggal mais bi samay këyit ak yooyu génne temps yi ci laa nekk jël sama liggéey bopp yor sama liggéey sama kër ay client wam taamu lool di ko jënd. léegi loolu moo am parce que nit ñi dañuy liggéey suñu liggéeyee temps bi la lañ dul am temps pour ñëw dem marché defar nokkos ak yooyu te dañuy bëgg nekk ci liggéey bëgg nekk ci seen kër yi te heure bi moo ko dul maye ak jot bi. moo tax dañuy préféré fekk comme ñun ñi ñu defar nokko si ba mu baax def ci lépp ba pare ñoom ñu ñoo jënd. fu nam sax am nañu jàpp ni ab tayal képp la ci jigéen di bàyyi ñu leen di defaral yooyu leen kos Fatou Bintou tàmmuwul loolu. man nag franchement comme jigéen laa man dama bëggul sama benn moromu jigéen di ma dëbbal nokkas waaw parce que na def ba dëbb ka ak la mu ca def te xamoo man damay préférer defaral sama bopp épices yi aussi fonk ma ka torop ñu naturel daal waaw. tayal la wala ñàkk jot la Astou Ndiaye gisu ci benn gàllankoor. ah man de ci sama xalaat du tayal parce que tam lépp rek ci jot gi la parce que léegi jigéen ñi ñëpp gi ci bureau yi ñu ngi liggéey dañuy bëgg a nekk ci seen kër yi mekk ci bureau yi mooy li ma la wax léegi temps bi rek lañ dul am bu ñu amul temps bi nag fa il fallait que ñu dem xool nga xam ne doy na leen te xam nañ li muy liggéey lan la. man ndax man ñi koy jënd ak man ñu ci bari dañ maa xam ma leen dama leen xam ñu xam ba pare xam ci li may liggéey. li may lekk rek loolu laay defal. moom laay jaay lii may togg ci sama kër te di ko lekk loolu laay defar dañu am kii bi ñu koy defee mu mulu nekk bu ñu defee appareil bi daal di koy wal bu nekk sotti wala soit ñu haché ko ba pare dugal ko ci congélateur bi bu ñu xëyee ñu dëbb ko ak gën ba mu mokk rumbux donte sax ndey Roqaya Thiam li dal xelam mooy defaral sa bopp li tax euh, defaral sa bopp ndokkas gën mooy Elle yi ngay associé pour defar ko nokkas élément yoy yeb dafa bax ci wérgu yaram doomu adama ci citer quelques rek comme par exemple Ginger euh, bi xamnañ day purifier le sang nga jël bi bi lutter contre radicaux libres ba nga nit ki euh, am cancer il naa dina ci dimbali lu bari nga euh, comme clou de girofle bi pareil euh, que jinjeer bi nga jël euh, ya aussi euh, comme on le dit naa naana bi hein nana yooyu yëpp da fay boko associé non seulement day joxe goût si sa togg mais surtout bu ci nek déjà nana bi dina la apporter ay vitamines hmm? dina la apporter tout ce qui est vitamine hein sel minéraux yi dang ko ci fek hein nga jël euh, beneen bi persil bi même chose vitamine A mi ci ah yooyu yëpp dalay lay apporter hmm? te boo ko boo leen associé nga defaral sa bopp non seulement sell gi di nga ko am mais li organisme bi soxla di nga ko am. chef Ali Sow di ci yokk bi la digle. nañu éviter épices yi bëri yu ñuy boole parfois épices yi ñuy boole sax mën nañoo rey da ngay gis ku jël parce que tey épice bu ne coriandre bu ñu nee coriandre yàpp la àndal. tay buñ né par exemple euh, persil chinois mais da ngay gis kay ku jël persil chinois boole ko ak persil normal jël poireau jël jël ail jël yépp mixé ko ben mais yaa ngi sank yaa ngi ni sànq tout excès est nuisible. ñun li ñu rey yëpp ëppal la ak bouillon yi mais boo jëlee par exemple épices naturel. yi tey naana soo doon muusal léegi jëlee sa naana raxas mu set sànni si biir que naana c'est non seulement c'est naturel naana da ngay gis ku am asthme ñu digal la ko c'est-à-dire xam nañ lu ñuy faj mais ñoo bañ. léegi nag yow boo nekkee si kër naan leen éviter leen bu yoon ñëwee kii dafa waane man naa waane te gudd fan moo ma gënal am fit gaaw togg yi bari nañu te wute waaye lépp luy gàllankoor doomu aadama jar na bàyyi xel ba tax na ak tabaski bi ñu jub si ñuy ñaax soxna yi la féete ci waañ wi ngir ñu bàyyi xel bu baax ci wér gu yaramu njaboot gi. ñi soxna May doon waxtaanee façon yi lekk yi nga xamante ne dañu koy togg ci tabaski bi te mu mën ñu gàllankoor di ñaax bépp jigéen mu mooy tundiku di leen jox dig daje ci beneen numéro ak yeneen i découverte